أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه فكيلو درسو ak ñeent nee na baabu ma jaa fi kuxli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy buntab li dikk ci tusngaluk yonantu sallallahu alayhi wa sallam nga yonantu sallallahu alayhi wa sallam naturellement bañ bëtam yàlla daf ko tusngal kaana ak xalal aynay noonu la mel naturellement boo ko gisee rek dangay gis ni ay bëtam dañoo tusngalu noonu la ko yàlla bindee terewut daan na tusngalu ndax dafa am njëriñ yu nekk ci tusngal am na ñuy tusngalu ngir taar waaye tusngal dafay faj te danañ gis ay njëriñam ci xadis yii dikk borom téere bi indi na ci ñeenti xadis ci bunt bi nee na xaddathanaa nettali nañu muhammadu bnu xumaydin sëriñ bu ñuy wax muhammad doomi xumayd arraziyu kooku ne xaddathana nettali nañu abu daawuda sëriñ bu ñuy wax abu daawud at tayaalisiyu kooku ne an abbaad jëlee ci abbaad ibn mansuur am na ci riwaaya yu mu gisañu mu am taa koo ko jëlee an ikrimata sëriñ bu ñuy wax ikrimata an ibni abbasin jëlee ci sayduna abdullahi doomi sayiduna abbas radiallahu anhuma yal na yàlla boole leen ngërëmam sayduna abdullahi abbas ne anna nabiya naka yonantu sallallahu alayhi wa qaala wax na ne iktaxilu na ngeen tusngaloo bil ithmidi ak xeer woowu ñuy wax ithmid ithmid moom la tubaab di wax antimoine mu ñuul jëng jëm ci xonk yonentu ne tusngalu baax na particulièrement ak xeetu tusngal bii di ismit lu tax mu ne fa innahu naka moom yajlu dafay leeral albasara gis xam nga ne nit de su juddoo bees du gis dara bëtam ba gisam di yokk tuuti di yokk tuuti ba mët hmm. waaye bu demee ba mage it bëtam dafay wàññee gisam dafay wàññeeku hmm. ba moom moytuwul sax mën naa am mu ñàkk ko balaa fee jógee hmm. nañ yàlla dimbale ba bu ñàkk suñ gis di ko yonantu ñaanee ne feeg ñu ngee dund bokk na ci nag liy tax gis di yokk ak di gën leer hmm. tus nga lu hmm. mu ne fay noo naka moom yej dafay leeral hmm. albasara gis wa yumbitu di saxal ak a màggal achaara kawari xef waaw ñiy yokk xef jaru ko bu ñu xamoon tusngal di ko def rek yonentu ne seen xef dana màgg waaw yonentu naturellement ku xefu la woon te mm-hmm. rafetle ko mm-hmm. sallallahu alayhi wa niñ ko jàngee mm-hmm. ci bunt yu njëkk yi mu ne wa zaama doo wax ne lay na nag saxal na ngay wax confirmer na nga maintenir na ngay wax ndax kii wax mooy Abdoulaye Abbas te lu mu gis la waaw zaama arab dana ko wax fekk ki muy wax dafa ne ah kooku dafay lay rek ni ni mu dikkee ci alquran hmm. zaama alladina kafaru an hmm. waaye zaamu bii nag hmm. du fi di lay saxal lay fi anna nabiya naka yonantu sallallahu alayhi wa kaanat nekkoon na loo di ko ñaal mukhalatun ab tusngalukaay mooy fi ngay def tusngal bi yattaxilu bopp dana tusngalu min ca moom kulla laylatin mm-hmm. bépp guddi thalathatan mm-hmm. ñetti tusngal fii haadihi ci bile bët mm-hmm. wa thalathatan ak ñetti tusngal fi haadihi ci bët bi ci des amoon na tusngalukaay boo xam ne mm. nee na guddi gu nekk mm. dana ca tusngalu ñett ci bëtëb ndeyjoor bi ñett ci bëtëb càmmoñ bi Hmm? waaw xadis ji muxaqiq bi wax na ne daif la waaye imaam tirmidi ci buntab libaas baabu maa jaa fi liktixaali wax na xadis ju rafet la ju tumuranke la hmm? ibnu maaja indi na ko ci tibbu ahmadu indi ko Mm-hmm. borom musnad imaam ahmad mm-hmm. waaye ñoom ñëpp nag jaaree ci ubaadatu mm-hmm. bin mansuur nee na xaddasanaa nettali nañu abdullahi sëriñ bu ñuy wax abdullahi nettali nañu doomi sabaaxu alhaashimiyu albasriyu haashimiyu giir la haashim basriyu dëkk ba mu dëkk lay wax hmm? muy basra gi nekk ci iraq mu ne xaddatanaa nettali nañu ubaydullahi bnu muusa te dañ bu ñuy wax ubaydullahi doomi muusa qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu hmm. israilu hmm. sëriñ bu ñuy wax israil hmm. euh, israil mooy firi jaamab yàlla rek boo ko gisee ci alquran rekk yaquba lay wax bu ne ay doomam mooy ñi askanoo ci moom fu mu ne banu israila rek hmm. mooy ñi nga xam ne ay sët lañ ak i doom hmm. ci yonentu yaquba hmm. illa ma xarama israilu ala nafsihi min qabli an tunazala altawra qul faatu bittawraati fatluha in kuntum sadiqin mooy yahud yi doon lay leen ko xaraamal mu ne déedéet yi yonent yàlla yaquuba moo nisiroon diggante mag boromam hmm. ne dootu leen jëfandikoo hmm. israilu mooy jaamub yàlla hmm. ñu ne soppeb yàlla iil mooy yàlla ci luxal ibriya day wax jabra iilu mika iilu israfiilu azra iilu ila axiri waaye luxa ibriya bànqaas la rekk ci luxal arabiya ndax mooy cosaan luxal arabiya mooy cosaanu luxa yi loolu mooy dëgg moo tax boo déggoon tey ibraniya ñuy wax baat yu bari dangay fekk mu nekk ci luxal arabiya walla mu xottee koo ca ñuy wax ñun asalaamaaleykum ñoom shalom aleykum la wax benn la hmm? waaw xam nga di nga dégg ñu naan Jérusalem mm-hmm. Jérusalem mooy Daaru Salaam mm-hmm. hmm? Daaru Salaam mm-hmm. mooy Qudsu capitalu Baytul Maqdis capitalu Palestine fa Baytul Maqdis nekk xaddathana nettali nañu abdu uh, naka la tuddati israilu an abbad bini mansour wa xaddathana nettali nañu ba tayit aliyun sëriñ bu ñëw aliyu ibn euh, juhrin sama téere bi xujrin la de waa ibnu xujrin laa a de mhm. ali ibnu xujrin xaddasanaa mhm. nettali nañu yazid ibnu haaruna xaddasanaa mhm. nettali nañu abdu ubaad ibnu mansour gis nga ñaari riwaaya la waaw gi moo lay beneen riwaaya la bu jógee ci ali ibnu xujrin bu bokkut ak riwaaya bi jógee ci abdullah ibnu sabah mooy ñaari riwaaya yi yëpp nettali nañ ma eh, am naa leen waaye boo leen toppee ñoom ñëpp dañuy delluwaat ci abbad eh, ibnu mansour hmm? abbad ibnu mansour an ikrimata jëlee ci ikrima an ibni abbasin jëlee ci seydna abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma qaala mu ne kaana nekkoon na rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallama mm-hmm. yaktaxilu mm-hmm. di tusngalu mm-hmm. qabla an yanaama njëkk muy nelaw bil ithmidi ci xeeru ithmid thalathata thalathan ñetti yoon fi kulli aynin ci bët bu ne wa qaala yazid ibnu haarun yazid ibnu haarun ab sëriñ la wax na fi xadis yi ci xadisam ne inna nabiya naka yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama kaanat nekkoon na la ñeel ko mukhalatun tusngalukaay yaktaxilu boobu dana tusngalu fiha ca moom inda naw mi ca ba muy jamonoy nelaw maanaam bu muy buy tëdd salaasan ñetti yoon fii kulli aynin ci bët bu ne Yaziid ibnu Haaroon mu ngi ci riwaaya ji ba tey moom moo jëlee ci Abbaad ibnu Mansour mu jëlee ci Akrima mu jëlee ci Abdullah Abbas hmm? muhaqiq bi wax na ne hadis ji eh, dégg nga am na doxfu wax na ne xadis ji am na ak lompañ hmm? wax na ne xadis ji am na ak lompañ lu tax eh, eh, nu mooy mooy naka la tuddati Abbad ibnu Mansour ku wax ku daan wax dëgg la waaye dafa daan def tatliis hmm? daan def tatliis te ñu ne ci mu ak dundam Euh, dégg nga am nag soppeeku maanaam nit dana wér ci xadis ci mujj ak dundam muy jaxase ba dootuñu layati ci ci moom àndak ak nag liñ waxoon ci xadis bi ko jiitu la ñuy wax xaddathana ahmad ibnu maniin nee na xaddathana muhammad ibnu yazid an muhammad ibni isxaaqa an muhammad ibni almunkadir Muhammad ibn Munkadir mi sëriñ la ci sëriñu imaam Maalik yi waaw ku mënoon waxtaan ba nga ree la waaye ku bëggoon yonantu bi la sallallahu alayhi ku ragaloon yàlla la ba tuddee yonantu sallallahu alayhi mu nekk beneen nit an jaabir jëlee ci seydna jaabir huwa moom ibnu abdullahi mooy jaabir ibnu abdullahi seydna abdullahi mi nga xam ne yàlla wax na ak moom directement gannaaw bu mu fi jógee radiallahu anhu qaala mu ne moom jaabir ne qaala rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne alaykum maa ngi leen di dénk bil ithmidi ci tusngaloo ithmid inda naw mi fa waxtu nelaw fa innahu naka moom yejloo dana leeral albasara gis wa yunbitu muy saxal ashara kawar mm-hmm. Mm-hmm. xadis ju wér nee na xaddasanaa qutaybatu bnu saciidin sëriñ bu ñu wax qutaybatu doomi saciid nettali nañu dégg nga qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu bishru bnul mufaddali bishru doomi mufaddal sëriñ la an abdillahi bni uthman jëlee ci sëriñ bu ñu abdullahi ibnu uthman mm-hmm. bul foog ne uthman ibnu affan mm-hmm. mi doomi xusaymu la mm-hmm. duut saxaabi sëriñ la ci sëriñu hadis yi an said ibnu jubayrin bokk na ci sangi taabiina yi waaw ci sëriñ bu ñu said ibnu jubayr ku yéeme la woon ci yàlla an ibni abbasin bokk ci sëriñ jëlee ci seydna abdullah ibni abbas radiallahu anhuma qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonentu wax na ne inna xayra ak xaalikum naka gën ci seeni tusngal al ithmidu mooy xeet wii ñuy wax ithmid yajlu dana leeral albasara gis wa yunbitu dana saxal achaara kawari xeef nee na xaddatanaa nettali nañu xadis ju wér la xaddatanaa nettali nañu ibrahim doomi xaddatanaa nettali nañu ibrahim sëriñ bu ñuy wax ibrahim ibnul mustamir di doomi al mustamir al basriyu kay ko jug basra dëkk la xaddatanaa nettali nañu abu aasim sëriñ bu ñëw abu aasim an uthman bni abdilmaliki jëlee ci sëriñ bu ñuy wax uthman doomi abdulmalik an salim jëlee ci salim an ibni umara jëlee ci ibnu umar salim ibnu umar ay baayam an salim jëlee ci sëriñ bu ñuy wax salim jëlee an abdullah ibni umara Hmm? Seydina Salim doomi Abdullah ibnu Omar la waaye mook Naafi kenn gën leen a wér ci Abdullah ibnu Omar ndax doom la ba pare taalibeem la taqoo ko lool mook Naafi Naafi mi nga xam ne sëriñ la ci sëriñu imam Malik yi bokkut ak Naafi al-Muqri ñaari Naafi la Naafi bii sëriñ la ci imam Malik Naafi ba léegi sëriñ la ci imam Malik waaye Naafi bii mooy ki taxawoon ak Abdullahi ibnu Umar doon xam-xamam naafi bële mooy ki nga xam ne mooy ilimaanu jàngkati alquran yi Madina wax nañ ne bu daan jàng alquran euh, gët daf daan génn ci euh, gémmiñam ñu laaj ko mu ne dafa gént gis yonantu sallallahu alayhi wa mu am lum def ca làmmiñ wa dégg nga moo tax keroog ba mu yeewoo fu mu waxeeti rekk dangay gis ne gëtt mooy génn ci gémmiñ gi moom nag mooy suñ sëriñ ci qiraatu ndax warsh mi nga xam ne moo riwaaya ci moom riwaayam la ñuy jàngee ñun dégg nga ñaar ñi gën a mag ci ñi riwaaya ci moom mooy warsh ak qaaluun warsh waa masra la usmaan la tudd waaye ñu koy dàkkantelee warsh ñoom moom ëpp ci ñun waa Afrique sowu jant jàngam la ñuy jàngee boo demee qaaluun jàngum qaaluun nag fu mel ni Libya fa la ëppee saalim jëlee ci abdulah ibnu amar radiallahu anhuma qaala mu ne qaala rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne aleykum maa ngi leen di dénk aleykum taqoo leen bil ithmi di ci tusngalub ithmit fa inna oo naka moom yajlu dana dégg nga leeral albasara gis wa yumbitu muy saxal ashaara kawar xadis ah, ju wér la